ci say ak ci may Bamba doy na sëkk te doy na sëkk ci say ak ci maytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk ci say ak ci maytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk ci say ak ci maytu Bamba doy na sëkk te doy na sëkk day doy la sëkk ci sëy ak ci may ak ci may baba doy na sëkk da doy na sëkk ci sëy ak ci may baba doy na sëkk Baba doy na sëkk

yàquwaay da doy na sëkk weeruwaay ci saytu xaaxal ak ci moytu ndax Bamba doy na sëkk yàquwaay da doy na sëkk weeruwaay ci saytu xaaxal ak ci moytu ndax Bamba doy na sëkk yàquwaay ak ci mbay bam la doy na sëkk la doy na sëkk ci sëy ak ci mbay bam la doy na sëkk la doy na sëkk ci sëy ak ci mbay bam la doy na sëkk la doy na sëkk say ak ci moy baba day na sëkk baba day na sëkk ci say ak ci moy baba day na sëkk baba day na sëkk ci say ak ci moy baba day na sëkk day na sëkk ci say ak ci moy baba day na sëkk day na sëkk

حق موي بابا دوي na set baaxul mooy da doy na set di wax leen di waat ci say ak ci mooy bamba doy na set baaxul mooy da doy na set ci say ak ci mooy bamba doy na set da doy na set ci say ak ci mooy bamba doy na set da doy na set ci say